demain les assises de la propreté et du cadre de vie à Bargny euh, dañu profiter ci journée euh, mondiale du nettoyage bi nga le 19 suba pour lancer assises yooyu euh, ma bëggoon wax assises yi démarré depuis d'ailleurs une semaine parce que dañu wax ni propreté mënuñu ko traiter cadre de vie te demul ci quartier yi wax ak jaboot yi échanger ak ñoom ci solution yi nga xam ne moom la trouver sensibiliser les motax donc depuis une semaine 38 quartiers Bargny yépp suñu ay équipe ñu ngi ci quartier yi pour def ay ateliers de quartier euh, suba incha le matin à 10 h donc dinañu recevoir moy le démarrage officiel en tout cas des plénières nañu recevoir le ministre Abdou Karim Fofana dina ñëw travailler travaux yi assises yooyu bu ko ubbee ba nopi dinañu def ay atelier ba ci ngone gi dimanche bi li des ci conseil de quartier ñu defagul nous def les derniers ateliers de quartier lundi le ministre donc des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement du territoire M. Omar Gueye dina venir, tëj assise yoyu nous bi euh, day doon ñu présenter euh, liguey bi xalat bi nga xamné le ci quartier yi joggé ci atelier yi ñu def ci plénière bi euh, bi day inauguration et lancement de la maison de l'environnement et du développement durable ba noppi ànd ak reboisement ci biir dëkk bi mu mel ni am na solo lool ñu jël question yooyu song leen président wane na yoon bi wax na ni mandat bi am na loo xam ni dafa bëgg Sénégal yëpp liggéey ci rawatina ñi nga xam ne ñun ñooy collectivité ay démembrement état lañu aussi mooy ñu euh, jëmbat ay garab pépp ci dëkk bi mooy ñu fexe ba Sénégal am zéro déchet du am benn saleté et du am ville bidonville manam ay dëkkuwaay yoo xam pas kenn tracé euh, normalement té ñun depuis en tout cas ñu à la mairie dafa ci suñu ay priorité 2015 nous avons lancé opération ville propre def ay jéego am solo ci ay kenn musul won xalaat ko a euh, nit loolu moo tax donc ñu profité ci li nga xam ni moom mooy journée mondiale du nettoyage bi nga xam ne ëllëg la ñu koy célébrer ñun pour teg assise yooyu maanaam waxtaan ci gox goxaat yi wut ay solutions ensemble surtout appliquer ces solutions solutions yooyu yëpp nag kuréel bi ñu tuddee maison de l'environnement moo koy porter moom mooy porter vraiment le reboisement moom mooy porter éducation environnementale jëm ci jaboot yi moom mooy porter bépp. taxawaay boo xam ne commune bi namm na ko am ci li nga xam ne ni moom mooy mbirum cet set ak environnement de manière globale. bari na ay dépôt foo xam ne ni vraiment dañ ko doon tuur balit yoo xam ne dañ ko defaraat ba mu normal euh, mën naa ci jël fi ñuy wax front de mer front de mer benn espace bu yaatu la sur un kilomètre amul dara lu fa nekk. li tax amul dara lu fa nekk parce que effectivement ñun dëkk ñu nekk xale foofu dañ fay tuur muy am ay ndox yu salte ndox yu bon kenn xalaat ko won kenn doonul won jaar fofu te juste à côté géej gi la nekk muy endroit bi gëna rafet ci Bargny bi ñu ñëwee ñu song ko dindi nañ ay centaine centaine de centaine de camions ay mbalit dindi nañ ko fofu am ay endroit yu ñu remblayé defar ay canalisation fofu lañ ci tollu xalé yi nañu espace bobu auto yi dañ fay jaar xalé yi defu football te boo demoon bat ñi ñu bëri boo laajee dañ lay wax ni fii de mosuñu woon xalaat ne nit mën na ko reconquérir mën na ko jëlaat delloo ko euh, askan wi ñuy ko dinañ continuer li ñu fay def parce que reboisement bi ñuy def lundi day am foofu ba noppi dinañ fa def ay banc éclairage publique bi nga xam ni mooy le solaire bi am ci dëkk yi bat ñi am na ci mm. foofu it euh, bien sûr daañu ko éclairer mën naa joxe beneen bërëb mooy kanalu bat ñi géej foofu moom mooy woon vraiment li ñuy le point noir paysager point bi gën doy war ci bir barni euh, loli nek fa depuis que barni est barni nous avons pu avec efage qui nous a accompagné ci birum RSE euh, tey jii euh, defar nañ ko defar bo xamni it sérieusement bo ko laajee ñi fa dëkk xalaatuñu woon ne bërëb bi dañ ko mëna défé ni donc ñu ngi ni en phase finalisation avec pont bi nga xamni moy permettre le passage des voitures dikoy koy def am na beneen place mu tudd place Missira foofu c'est pareil euh, c'est à peu près un peu moins d'un hectare euh, mais euh, pareil depuis c'est comme ça donc foofu it des camions des centaines de camions tey jii boo demee xale yaa ngi football jëlaat nañu ko des na it raay bi raay bi moom dañ ko defoon vraiment bëri na ay endroit d'ailleurs ci Sénégal ñun 2015 lañ song foofu pareil dindi fa lu bëri ci ay mbalit mais terre bi bi mu il ba tax na tey boo fa jaaree ko xàmmee loolu mooy quatre euh, yi nga sites yi nga xam gën mais bëri na ay euh, fu ñu doon tuure mbalit ci bi ko mais ñent yooyu moom dafa doyoon waar ba un appel à toutes les populations du Sénégal de Barni en particulier il faut ñëpp jàpp ci liggéey bi bu amee loo avons une responsabilité partagée cadre de vie que maintenir pour le bien de nous tous. Euh, maison de l'environnement et développement durable BIMATEC. Nous euh, avons dañu jàpp ni njariñam des problème yi érosion côtière pollution atmosphérique de manière globale cadre de vie ci cadre de vie éducation environnementale nous avons def jéem a dès le bas âge avec des expositions des films et puis un rapport avec l'IEF teg un programme annuel pour attaquer euh, s'attaquer à ce phénomène dès le plus jeune âge pour càmbar xale yi ci li nga xamni mom moy environnement parce que le forcément euh, suñu ay pratique day changer benen bi moy day porter reboisement bi nga xamni président moo euh, laaj la maison yit moo koy porter benen bi moy érosion côtière érosion côtière suñu ay famille dañ ci sonn sérieusement la situation est très difficile et très douloureuse nous avons des familles déchirées dans la douleur dans la peine bien évidemment euh, ça déchire Nous avons des depuis ñu ñëw moyen commune bëriwul certes mais nous avons ay moyen La première partie bi mooy si leen reloger il faut ñu am une assiette foncière loolu alhamdulilah sécuriser sécurisé, ko am nañu assiette foncière pour reloger les nga sont victimes de la région côtière ben ñaarel bi euh ñu wuti ay financement partenaire à gauche à droite ba Senelec nangu jappalé ñu leneen li maire bi jël ko ci budget ñu engagé la première phase bi nga xamné dina permettre ñu reloger 114 quatorze lolu procédure yépp bouclé nañu ko ba étude de sol yi légui mu tambali nous engagé première phase du programme de relogement des victimes de la région côtière 114 donc euh, ménages la deuxième phase nous utilisons pour partenaires techniques et financiers Benen euh, aspect bi nga la maison de l'environnement ne comporte les pollutions atmosphériques les pollutions atmosphériques dafa bari une euh, situation nous avons la Sokosim où bien évidemment on souhaite fort que des techniques nouvelles soient utilisées pour limiter les pollutions calcaire bi ni koy euh, par les explosifs nous souhaitons que ay techniques euh, non polluant d'un point de vue sonore am na dans ce monde nous utiliser ko des calcaire bi sans def ay mine loolu dina am solo lool surtout aussi les pollutions atmosphériques nous utiliser ay techniques yu bees ba noppi it euh, industrie fi et nous avons entendu récemment parler d'une zone d'activité bouffée avec notamment euh, une industrie euh, boo euh, sidérurgie nous attendons d'y voir clair mais appel man secteur Bogou dafa nous traiter avec beaucoup de délicatesse la cohabitation entre aménagement et industrie c'est une vieille question boo les aménagistes et les urbanistes le connaissent Ligue n'a a rafet plan Sénégal émergent mooy le pôle urbain de Diamniadio mu ngi à deux kilomètres de fi nga xam ne foofu la bëgg une entreprise de sidérurgie les populations de Barni, bien évidemment ils sont là moo tax mun ma gëm ni pour l'intérêt des populations yi nekk foofu yépp Bargny Diamniadio Sendou parce que foofu doon na doon benn bloc lay doon kenn dootul xàmmee fan la ville yem ñun ñëpp gis nañu ko pôle urbain ak fi ñu bëgg def pôle ak fi ñu bëgg a def euh, entreprise boobu moo gën a jege fi ñu bëgg def entreprise bi ak bat euh, Bargny moo tax ma jàpp ne ay waxtaan mën na am pour ñu wut beneen site ba nga xam ne ni moo gën a approprié pour bañ a tout simplement créer une situation boo xam ne ëllëg cohabitation boo xam ne day jafe entre toutes les populations tout autour Barnier, le pôle urbain Sendou. Et je précise tout simplement, c'est une question qui concerne au-delà même de Barnier, parce que le plus beau projet du Sénégal émergent, c'est le pôle urbain de Diamniadio. Nous avons chance de nous sur notre territoire, sur notre département, sur nos responsabilités. Moi, nous ce que nous pour nous étayer dans d'autres solutions qui ne compromettent pas forcément l'avenir de ce secteur tertiaire une quinzaine de ministères de ce secteur sportif, l'arena, le stade olympique, de ce secteur ô combien stratégique pour l'avenir du Sénégal.